cinquante 713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. docteur bi du bind massage du bind ni la demal du def nii par exemple bon de massage day def bon de kinésithérapie léegi kañ ki xamul peut-être xamul mais ki am fitu jël kayit boobu ni man mën naa la faj kooku lañu war a waxal kiné yi yi fi ëpp ci Sénégal boo jëlee kiné yi seen nekk Sénégal. quatre-vingt-quinze pour cent yi hôpitaux yi gën a cher li ñuy faj xam nañ leen fii ci Dakar amul ku ci war a weesu junni salaamaaleykum waaw man la Amala Baye Maguette Seye je suis kinésithérapeute diplômé Eh, li ma mën a expliquer ci mbirum kinésithérapie parce que ñu bëri dañ ko jël kinésithérapie tënk ko ci massage alors que massage moo tënku ci kinésithérapie parce que massage benn pàcc la bi nga xamee ni ko boo koy jàng boo tàggatee nit ki ci wàllu faj ba pare mën nga ko defal mu accompagner ko ak massage donc massage day accompagner ndaxte massage dina wàññi maanaam luy ci metit am na ci njëriñ dina tamit tax aussi yaram aussi bu fasu mu ñu maase la pour mu bàyyi bàyyi tuuti mu détendre maase musculaire bu baax waaw massage ci lool lay ci loolu la nekk wolof yi dañuy wax dàmp donc dafa am aada aussi fii ci senegal mbiru dàmp loolu moo tax nag euh, mbiru massage buñ ci wax dafay xaw a euh, lëj tuuti ci fenn ndaxte ndax dàmp lañu war a def moom la def hôpital wala massage bi ñuy wax aussi est-ce que massage bi nuy wax exactement moom mooy dàmp parce que loolu aussi foog ñu leeral ko parce que dàmp tamit ci massage la bokk waaye xeetu massage la xale bu juddu liir dañ leen di dàmp jigéen bu amee bu amee doom ba noppi tamit gis nañu dañ leen di dàmp fii te dàmp yooyu dafa bokk na ci kinési li ñuy liggéey ñu nit mais dàmp yooyu dafa am ci ci kinésithérapie dàmp yooyu dafa am fu waxtu boo ko war a defee ci xale bi bu juddoo mën nañ ko commencer di dàmp mais ci jigéenu wérul bi bu demee ba mucc dina toog giir bi nga xamee ni ko bala ñu koy commencé dàmp dina am giir ci ñun kinésithérapie mais ci ci kinésithérapeute mais li ñuy gis moom moo di fii bu demee ba mu jigéen ki mucc dañuy commencé dàmp ci clinique bi traditionnel par ay jigéen yu ñëw di def loolu loolu ñun yooyu yëpp dañ koy jaxase maanaam ci waa xeetu massage ndigg dangay gis ki nga xam ni que këram ndiggam day metti mu woo doomam ni ko yéeg ci yéegal ma sama ndigg li waaye ndigg nit dafa am ay composante yi nga xamee ni ko yax la ak euh, ay soox ak luy fuy luy yóbbu deret bi ak di ko indi di koy dundal am na aussi lu ñuy wax aussi neer yi neer yi dañuy jege yax yi dañuy jege yeneen tamit wàll yi comme suux yeeg yooyu parce que neer yi moom mooy moom mooy commandé li war a suux bi war a tàggat suux bi war a yëngatu neer bi moom mooy yóbbu information moo koy jël waaw ki war a maase buñ koy wax ci ñun dañuy teg massage bi buñ ko tegee ci yoon parce que Sénégal dañuy wax li li li fiy yoon këyit yi texte yi luñ ci bind ci ki war a maase fii moom moo di ñun dañuy wax masseur kinésithérapeute parce que yoon loolu la wax. yoon loolu la wax te du léegi waaw loolu dinaa ci ñëw léegi waaye loolu du léegi hmm. yoon bi mu waxee loolu loolu moo jiitu sax indépendance Sénégal ci tubaab yi lañ ko jëkk jëlee parce que xeetu faj yoo gis yëpp faculté médecine même sax buñ koy créer du du du kenn créé ko bi nu amee indépendance ba léegi ci jamonoy tubaab yi la woon xeetu massage tamit bi muy dugg ci Sénégal maanaam presque ba mu amee France tuuti lañ ci teg presque ñu commencé ko te fii Sénégal aussi mu am fi mais bëriwuñu woon ci jamono yooyu ay tubaab ñoo ko daan def. lan moo waral kon waaw loolu li koy gën a indi moom moo di euh, surtout góor ñi nekk ci koñ bi am nga ñu ñi gis la nga am tuuti kàttan ñu ni ah diw de kii wam di war na ko mën a bës xaaral man de sama doom bi de moom may bësal nga ñëw ñu ni kii diggam dafay metti nga commencé bës nga def ko ñaari yoon ñetti yoon ñu woola ci benn kër woo ci beneen kër noonu lay commencé recommandation yi day commencé noonu te loolu moom mooy danger bi parce que kee jàng ko parce que daf ko defal papaam wala mu defal ko nijaayam wala mu defal ko kenn ku nu xam ci koñ bi kooku commencé bu yàggee am ku ubbi saalu sport am dama soxla benn masseur benn masseur ñu ni ah ñu jëli bi ci koñ bi teg est-ce que dafa war a am salon di def massage ku ubbi salle de gym loolu beneen question la loolu nguur gi man laa koy delloo ñoom ñoo war a regle loolu parce que mënoo bind ay këyit yu am këyit yu jaar yoon nga bind ay këyit yi nga xam ne ay loi la ay texte la ba pare nit ñi di ko jalgati ngay jël sa xaalis di former ay nit yi nga xam ne que loolu mooy seen liggéey nit ñooñu taxaw ay nit ñëw di def seen liggéey te yow nga yore police bi yore lépp mën a xam li xew te doo ci wax du dul mu am problème. mais mais salon mënul am kayit. mënul am kayit dafa mel na que dafa mel na que ku am sa maanaam dafa benn na ku ñëw nga déclaré ni man euh, boutique laa yor bi nga xam damay jaay lekk ñu dem ba ci digg ba ngay jaay peinture. sunu sunu sunu dëkk yi loolu loolu garaawul. fii Sénégal da ngay gis sax boutique bi nga xam da ngay dugg sax gis que muy jaay euh, maanaam maanaam genre xeetu yeneen jaay comme ay droguerie xaw ma na laa ko mën ci wolof moom mooy lépp lu jëm ci ay affaire peinture ki lu ñuy defaree ay douche ki ay acide ak yu demee noonu nga gis ci beneen pegg ba ba ngay jaay boutique di jaay ceeb di jaay yëpp te kenn du wax ci loolu nag jaxasoo boobu nag moo am ci maanaam ci fànn yëpp dafa dem ba commencé dugg léegi nag ci wàllu faj bi parce que euh, salon yooyu am na ñi nga xam ni ko sax dangay ñëw boo dañuy yore ak prescription maanaam kayit bi nga xam ni que docteur bi moo koy bind daani la yow faj bi ñu lay faj bi ma lay faj lii moo koy tax mu yem lii mooy tax mu àgg da ngay dem defi kinésithérapie parce que docteur bi du bind massage du bind ni la demal du def nii par exemple bon de massage day def bon de kinésithérapie léegi kañ ki xamul peut-être xamul mais ki am fitu jël kayit boobu nii man mën naa la faj kooku la war a waxal te kooku ñun association la ñu yor amagul doole bi nga xam ni ko dina mën a taxaw beneen taxawaay peut-être loolu sunu président dina ci mën a gën a mën a wax. ba fu la neex maase ak euh, façon ba nga koy defee yenn saa sax nga gis ñoom dafa am lu laxatu ci ginnaaw ñoom di maase. non du du yéex yéexuñu ci mooy mm. par wax ji dañ koy delloo toujours rek ci ñu ko moom parce que dafa am ñi nga xam ni que ñun dañuy def concours concours national la bu boo koy def ci jamono yuñ koy defee da ngay gis nit ñi bu du ñëwee dañuy nekk ay junni te concours boobu ñi koy def. bu nu nekkee même bu nu nekkee ay junni maanaam duñ ci jël lu ëpp fukk mosul mo mosuma gis ñu jël lu ëpp fukk ci noonu liñ ko def it bëriwul ba fi ma lay wax nii sax formation bi fi ma lay wax nii ren ji amul nguur moo yor loolu moo ko war a organiser. pour former ay kinésithérapeute bu ñu demee ba dem boo déggee sunu président mi ngi wax ni ñi ngi toll ci ay soixantaine ñi nga xam ne que ñi ngi exercer ñu bëri dem nañu retraite ñii ba pare nguur gi formeetul lu tax formeetul loolu nit yi ñoo ko war la parce que prestation la bi nga xam ne ko mi ñi dañ koy gën a soxla parce que ci wàllu liggéey nit ki léegi bu njëkk ba boo defee accident bu sa tànk dammee sax dañ naan la bàyyil football léegi fii gis nañ fii ay joueurs yu mel ne ay Djibril Cissé am na yeneen ñi nga xam ne ko fii seen tànk damm na ba yax bi génn ñu footballaat lan moo ko waral faj bi moo tollu foofu bu nu paree dañuy def kinésithérapie aussi xeetu faj bi comme bi ñuy def nii pour mën a dellu si waat ci biir terrain bi. docteur bu ñu bu waxee ci nga xamante ne ñoo ñooy maase te wala ñoo maase tey jii ndax sa yaram nga jël ko dégg ko koo xam ne du risque. non risque la risque la mais risque la bi nga xam ne bu la ci dara fekkee euh, bu fekkee ni da la bindal prescription loolu doo xam foo koy waxe risque la ci loolu yëpp mais aussi. Euh, lu loolu lu koy gën a yokku moom moo di comme sunu dëkk yi nu mu mel informel bi dafa bëri bu fekkoon ni comme dëkk tubaab bi la risque boobu danga koy éviter yow ci saa si parce que assurance da ngay dem dugal sa xaalis après ñu ñu ñu delloo la wala nga dem dugal assurance bi assurance bi daal ni ah kii kii bind euh, devis bi pour ñu faj nit ki kii amul kayit donc mënuma ko faj mais dañu tolluwul foofu nit ki da ngay am sa xaalis dem seeti benn waay bun la xam naa benn waay bi nga xam foo ko moom bu la bësee rek bu la kooku moom vraiment mi ngi vraiment li muy def moom mën na ko kooku la lay dem mu yóbbu la ci kooku kooku def li mu war a def bu mu defee bu defee lu mu war a def nag ah yow moom loo ci yëg rek doo ko am sax doo ko sax mën a waxi parce que doo am foo koy waxi. comme déedéet dé déedéet déedéet loolu waxin la rek man dama naan euh, du du question kon hmm. non parce que premièrement ñun bëriwuñu d' abord hmm. te kiné yi yi fi ëpp ci Sénégal boo jëlee kiné yi seen nekk Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent yi ñu ngi ci public bi. public bi yi gën a cher duma wax ay tour du ma publicité mais hôpitaux yi gën a cher li ñuy faj xam nañ leen fii ci Dakar amul ku ci war a weesu junni donc junni voilà léegi nag léegi nag comme ñun bëri wuñu rang bi dafay bëri peut-être yenn kilifa yi mënuñu dem hôpital toog di rang waral ñu jël kii ne seen kër waaye kiné ku ko ku ko mën moo koy jël parce que Euh, dafa nekk prestation bi nga xam ne ko dafa mel na tey ji yow nga jënd sa benn produit ni nañ la ko livreel sa kër livreur bi ñëw nga ni ko ma la fayee wala ngay waxaale ak moom noonu la demee mënoo woo kiné mu ñëw sa kër ba pare ngay waxaale waxaale bu tar kooku daf lay wat gannaaw parce que liggéeyam dafay bëre li mu koy laaj dafay bëre donc ñun bëre mais li nu mën la ñuy def tamit parce que mënoo nii rek comme bëriwunu rek damay jël damay yokk tarif bi day cher parce que damay jël ku dul ku am xaalis dañuy jël ñu nekk yenn saa yi hôpital da ngay jël nit ba pare sax jox ko paas. wala mhm. mm, noonu la nga war a waaw parce que jàngat la bi nga xamee ni ko dañ koy def ci nit ki bala nga koy laal. dafa am lu leen waaw sitting bi maanaam du sitting bu nga xam ne ni ko dañuy def sitting noonu rek ndax li fi xew déedéet mm-hmm. dañu gis ni li fi xew nit yi wax na mën a xam tamit li nu wax parce que mbir bi mu xewee yéen ñëpp ñëpp ko déggandoo dañ fi tudd lu ñuy wax massage thérapeutique ñu wax ni tubaab bu nee massage thérapeutique rek kiné moo koy def pépp mm-hmm. ci àdduna bi nag ndaxte tey jii boo demee hôpital bu la médecin bi bindalee benn bu la docteur bi bindalee benn këyit ñu ne da war a def massage gis nga këyit boobu boo ko doon yóbbu ba États-Unis xam lu ñuy def dañ koy traduire mais day valable dañ koy traduire donc dañuy xool bal naan boo ko yóbbu woon ba Japon dañ koy traduire ci japonais mais day valable parce que ki ko bind nit ku valable la docteur la dafa li mu bind c'est valable ñun dañuy jot ay bon de kiné ay nit yi am dañu doon fajoo France ñu ñëw war a yeggale Sénégal dañuy ñëwaat seen bon kooku bu xamulee ci dëkk heureusement ba France ñoom dañuy di doon organiser ci côté boobu ñu ñu dund mais fii ku xamul loolu da ngay jël sa bon de kiné dugal ko sa poche wër ñu da ngay seet ku lay maase léegi nag loolu nag moom mooy jur bi fi xew mi te am na yeneen mu jur yeneen ñi kenn yëgu te ci yeneen fànn la jëmu ci fànn li euh, actualité bi mais am na yeneen xeet yu mu jur am na ñi nga xam ne ni ko jëlee leen ci paralysie mm-hmm. amuñu fu ñu ko waxee amuñu fu am na ñi nga xam ne ko maanaam dem nañ ci nit mu lekk li ñu amoon yëpp nga xam ne bu ñu ñëwee dañ naa la amoon ah, man sëñ bi de bugg naa faj waaye amatuma dara fi ma jaar yëpp daal parce que fu ñu jaar dara baaxul si mm-hmm. jaaruñu benn hôpital mm-hmm. te loolu nag nguur gi moo ko yor. jërëjëf monsieur Seye voilà ñu ngi lay jaajëfal ci interview bi ñu accordé